di fàttali moom lu tuuti su fekkee li ñuy fàttali ne ci ci yàlla lay bàyyi boo ak yonenteem ndax nit bu jugoon bu sori sax mu ñëw ba yegg si yóbbu ñaari baat ñaari baat yooyu amaan na mën na koo jëriñ ndax mbokk yi ku nekk la lay jëriñ xamoo magi salaf yi dañ doon faral di wax amaan na ñun danañ continuer di bind xadiis ba tey lu tax ndax baat bi nu war a jëriñ amaan na ba léegi di dëgg ndax loolu kenn xamul kenn ku ci nekk am na bis boo xëy rek yàlla tànkat la nga jëm ci sunna wala mu tànkat la nga jëm ci baax fekk benn baat rek la du caa ngeen am waxtaan bu réeréeré nga dégg mu doon déedéet benn baat rek moo di koy suqali la sa biir xol kon baal kàddu ga ñuy jariñoo ba léegi xamuñu xam ngeen ne mbokk yi fiq buñ ko waxee dafa ëmb mbooleem lu jëm ci ay ibaadaat ak comme ni nga ko xamee borom xam-xam yi di ko bind ci wàllu fiq loolu la gudd lu gën a yaatu waaye nit mu yëkkate rek dafa am fiq dafa am fiq sunna am fiqhu daawa am fiqhu tijaara am fiqhu muamala day fiqhu jëflan bi ñun nag ñun jullit ñi yàlla daf noo nattoo dañoo manqué fiqhu muamala te loolu lu war a jàngala jàngalante ko suñu biir mooy fiqhu jëflante ndax am xam ngeen mbokk yi suñu borom bi ñu wàccee ci kaw suuf wàccewul pour ñuy jëflanteeg jur gi wala ngir ñuy jëflanteeg rab yi wala ñu jëflanteeg jinne yi wala malaaka yi déedéet daf noo wàcce pour ñuy jëflante suñu biir mbokk yi ñun ñii di jëflante ay nit lañ te suñu borom dafa am lu mu tër loola tudd fiqhul muamala mooy fiqhul jëflante saa bu ñu amee problème wala suñu ànd neexul wala baaxul wala mu xajam dafa fekk suñu fiqhul muamala moo baaxul fiqhul muamala mooy nga xam ni kii nit la may nit muy julit may julit daa am ay mbaax mbaax man ay mbaax mbaax te faw ñu ànd jëflante mu ami ayib ma ami ayib kon dama koy nawee lim baax la ngir moom mu nawee la li ma baax ma ñàppal jàppal ko ngànt ci lim safaan le pour moom mu jàppal ma ngànt ci li ma safaan le gis nga ñaari ñeenti baat yi mbokk yi rek doy fiqul mu am jël tari xadiis yu bari jël tari ay aaya déedéet gis nga ñeenti baat yi rek buñ ko fa sartante woon rek suñu ànd fiqul mu am la jëm mooy naataka ba nawal la li nga ma gën a baaxle ngir nga nawee wa li ma la gën a baaxle naataka ba nëbbal la muñal la li nga ayible ngir nga nëbbal ma muñal ma li ma ayible parce que ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñeenti yi doogu ji waaye déedéet xam ngeen iblis moom saa yi du yokk doomu aadama toujours ko yëkk muy gis ay défoom déedéet défo yi moom gis tam lay gis au lieu que mu gis la boppam jul daf baax la déedéet lam safaane lay xool mbokk yi xam ngeen ki yore ñaari saako du yor waa ji fii téeméeri tiyaaba ah saako càmmoñ bi nga defal ko ci fukki safaane juróom wax dëgg yàlla maam te mënta nag mukk ma nëbbal waa ji téeméeri tiyaabaam yii bëgg koo gerte ngir fukki safaane juróom yi ma ko xamal sama la ko càmmoñ loolu xel sax mënul nangu loolu pourquoi nit ñuy nangu loolu te bopp yi kenn ku ci nekk boo waxee tiyaab sax xamal nga sa bopp juri ay baax baax de gis ngeen cheikh al islam ibn taymiya day wax ci am solo mu ni kenn ku nekk daa am solo yàlla dafa lay fàtt waaye ku nekk da ngay am foo amee nag da ngay gis waay boo xam ne gis problème mooy lan mooy wax dëgg moom dëgg moom te koo ni jàpp julli kat la naafila la naafila kat la wóor kat su te wax dëgg mooy problème maanaam xam ngeen kenn ku nekk ci ñun boo wéetee di nga xam lii sa défaut bi lii sa lii sa tuur sa défaut am na koo xam ne moom problème moom yëpp ne moom boo ko tuddee moo ne neexu ko de wallaahi neexu ko neexu ko bëgg ko te gëm na ne li muy def baaxu waaye mooy na tomb comme da ngeen gisoon ci saxaaba yi koo xamante ni nag sàngara naan sàngara laa xam ngeen ni abu mextel nga xamante ni bu taxawee ci biir xare bi day remplacer junni góor saxal saa bi waxaas jàmbaar yi fàtt sa dujooju xam ngeen ku xare ba jaaxal ko kooka gaynde la problème dama problème naan sànga boo ko jëlee dóor ko fii léegi bu subaa mu ne man naa naan sànga comme loolu la problème dafa koo xam ne problème muy jigéen moom daal fitnaan foofu la nekk dafa koo xam ne problème am muy jëw moom daal moom jëw moom mun na noo baax am na koo xam ne pour mu wax la respecté li mu wax loolu moom daanaka moo ko la ci kaw suuf am na koo xam ni lépp fay déedéet moom loolu problème la ci ne kenn ku ci nekk ak fa nga amee défaut su ko defee nit ki nee na day toog di ñi deer défaut parce que neexu ko waaye ku nekk nag gis nga waa ji nga xam ni pour mu wax la nekk dafa jafe ci moom yàlla xam ne boo ko seetloo naa fi dëkkati guddi la boo xam ni subhanallah boo diggul tooba rek da ngay fàttali moo tax kenn ku ci nekk da ngay am fattu da ngay am fattu ci leen fattu muy yàlla dina ci jël ci benn guddi am na koo xam ne gis nga alalam bokk ko mbokki jullitam yi léegi mu saaw saawee mu jeex comme comme ndox naan ndox ci moom waaye problème am lële la ci benn sii ma li woon sànq am na koo xam ni tey jii yow li nga ko xamal ci ay baax baax xamal nga ko ci yiw loo xam ni tey ah dafa jàpp ni nit warut a war mën a jël la suuf di ko tëkkaleeg safaan léegi nag feesakaayu maandu yu bokk yi mooy su dee jiw mii xamal naa ko ci ay baax baax loo xam man sax amul ci man dëgg dëgg war naa ko ñu ñëw ci buntu bi seytaan du la bàyyi ngay def loolu nag déedéet seytaane moom du la xool loo da lay fàtte loolu baax la lu bon la lay ko def nga di ko xool bis bu nekk te doomu aadama kat mbokk yi defe naa xool ay ayibam moo ko war a gën a yitteel muy xool ayibu mbokk bi itam gis nga seytaane ku bon na mu yàq ay jëkkër ci dinaa ñu faral di joxe misaal dëgg naa joxe naa lu ma ñett yoon ñeent waaye amul solo moo tax ma di ko baamtuwaat gis nga tey koy jëflante sa bokkum julit moo xam entreprise ngeen bokk moo xam école ngeen bokk moo xam jàkka ja ngeen di faral di daje moo xam lu ngeen même bu dee sax projet àddina yi sax ngeen jël gis nga iblis day fexe fexe fexe fexe ba du ngeen ànd ngeen dëgër bopp ba ànd mu lay yedd taxaw fexe ba du ngeen sellal ngeen góorgóorlu bay sellal xam nga lu muy def day fexe man ma tooñ wala nga tooñ parce que man dama lay tooñ ngir nga gis sa bopp su ko defee soo gisee sa bopp nga jedd ma suñu diggante yàqu wala déedéet mu fexe man ma tooñ la su ma la tooñee nga gis sa bopp coupé sa relation ak man su ko defee mu am lël doon mbokk yi gis nga technique yu salte yu garaaw yi yu ko gën a bon sax iblis mi ko yaay wax naa leen ni imam ibn jawzi tabis iblis nee na iblis day dikkal képp ci jàpp gis nga dafa ko bi fara bunt dañuy iblis jàppkat yi nii la leen di dikkal yi iblis bu dikkalee jullikat yi fii lay jaar téere la boo xam ne damay wax ne bu bees mënoon na jël ak jot jàngale ko ci ci gën a am solo ci dundu aw doomu aadama la gis nga day dikkal ba dikkal jàngkat alquran ah yow nag booy jàng yow nit ñi yow yow yow rek la ñuy déglu su ko defee nga commencé di réy xalaat ne peut être dundu nanoo ko woon sax yow yow borom xam-xam yow de ay dëkk moom yaataraw yow de yow de yéen boo ko ñëwuloon ko mu ko fi jàngale nga commencé complété ko nag jàpp ne fi nekk nii fi nekk masala yu jógee ci asamaan sax yaa ko waroon a tontu gis nga de mu di ko jullikat bi amul kenn amul kenn xatta zuhaar ñett ña nga xam ne ay da dugg ci àddina lañ nga xam ne ba dugg leen dikkalee Sofiane kay ba dugg leen dikkalee ñay teelal kenn ku ne ci catégorie doomu aadama yi bunt ba mu leen dikkalee du bokk ak sa morom koy dikkalee gis nga bu dikkee ni nag tey nga arrière daanu daw nag la mu doon bëgg am na boo daanuwul mu xëcc mbir lay doon bu bi fay càmmoñ xëcc sa kanam xëcc si ginnaaw daanuwoo muy da ngay dëgër dëgër bi ba day doon kon fële ah moom demul ngéer demul ceeb joxewul dépense seetiwul mbokk seetiwul ko feebar amul benn programme innama yadu huwa xisbu nekku min asxaabi sair xam ngeen li li métier bi mooy woote ngir am mbooloo mu tàbbi ànd ak tàbbi sa barab fii lay toog di la baal yaa kat ciwut de gis nga fan ngaa nekk ci sa barab di jaamu yàlla fanweeri at fekk fanweeri ak ñëpp gis nañ ko bi la xam parce que fanweeri gis dana ñëw benn bisa yi jot nga ñaar mbaa bis jot nga jaaxle mbaa bis jot nga am la naqari ci nit lay sa yàq li nga jaam woon yàlla lépp mu jaaxaan xat taay la ba tuf li génn nga joro fekk ko day yàq de fanweeri ak yi gën a jaamu yàlla yëpp fexe na ba yàq ko moom day jaax xat taay ba jaaxaan dem yoonam parce que loolu mu si ci yow gis nga da ngay topp di la topp di la topp ila axiri ramaqin min alxayaat car di la mujj ci sa dund bala cay doon gis nga iblis saa boo demee ba toll ci sukuraat sax mi ngi ñëw taxaw te mbaa xam nga ni foofa lay gën a dollee ay effort parce que yëg ni fii moom mooy ab sànni kàccam boo ko rëccee rek jeex moo tax mbokk yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali tëkk bul muamala ci boppam war nañ koo jàngaat bu baax fekk ak jëflante gis nga tey yow mën nga mën a tëj mën nga mën a tëj te nekk boo ma tëjee wallaay jiboo sama lépp de d'accord tëj nga ma waaye jiboo sama lépp ndax am nga lu ma baax waaye gis nga li nga tax li ma tibalee amaan na man am naa benn jaamu yàlla boobu booba rek la yàlla kontaan ci man subhanahu wa taala mooy lan koo fàtte man mën naa laa contre junni ni ma ko contre ngir lan du sa jëm jëm benn mbiri laa contre ci yow fekk amaan na waa ji bokk na ci ñi nga xam ne yonent yàlla bi nee na su yàlla bëggee naan jibril woote ci asamaan si nee yàlla bëgg na diw jibril mu ne ah yéen waa asamaan ne suñu borom jox na ma ndigal tey suba nee diw na ko bëgg ñu ne ah ah waa ñu bëgg leen ko yéen waa asamaan yépp mu ne fa yóbbaa wala muy xabul subhanallah allahu akbar mbokk yi asamaan ak li fa ne ci ay malaaka xam ngeen ci yàlla bi ne na asamaan saa yi naa xaq xaq xaq ma mel ni waaj a fàq ndax amul foo mën a teg tànk wala ñeenti baaraam lu dul malaaka la ko sujud mbokk yi malaaka yooyu yëpp buñ dayoo di ndamu ab nit ngir lan ngir ñu waaj daal benn bis daal dafa mas a xool ku sonn koo xam ne xam ne ni kii dafa sonn mu yor loo xam ne mbir na ko ni lii am na ci soxla mu nangu koo génne ngir yàlla dimbali ko ko affaire ba teel xam nga yéen ci sax moom yàlla benn sa benn jaamu yàlla bu toll nii fekk gerte moom lay jël teg ko ci loxoom lu sell la di la ko yaral di la ko yaral di la ko yaral ba mu ëpp ñu puy ba toll ni montagne fekk jëmmuñu si la yàlla kontaane wa qawaba alaka alqabula fi samawati wal ard nit ñi bëgg doomu aadama bëgg la te boo ne jamono ñu dafa naan fekk na yow sax jiw mooy sa problème kon yooyu nañ koy bàyyi xel seytaane bu ñu nangu mu ñuy nëbbal li nit ci baax ne waaye di ñu wan li nga xam ne mooy li nit ci bon ne maa ngi jeexalee mbokk yi bu leen fàtte ni saxaaba yi ñooñu ñu gënoon a sell ci xool mbokk yi xasaan bi taalis yéen yàlla ko yëkkati taxawal ci kaw minbar bii nga waye yonent bi te nga xam ni fii ak yaa ngi dépendre yonent bi jibril la nga lay jàppale mbokk yi xasaan lu ko dal la bañ sumaalee ay sa mbokk yi ne ko saxal ku jibril di dëgëral tew lan bi foofu lu ko dal lan moo ko dal bu ñuy tuumal ay mu cay bokk xam na ci bis cex jigéen ju ragal yàlla bay ànd ci xare bi lan moo ko dal bu ñuy tuumal ay sa bokk ci xaaji bi nani ba daa lan moo ko dal ba yéen ci bi gisoon saxaaba yi mu génn siiwal sa këram bu ko amal abu mexjan lu ko dal bay naan sàngara saxaaba yëpp ci ñëw damay fàtte turam mu dem ba ci yoon seen seen xaarisa na mu seen kuy sangu rek di ko yëg subhanallah nit ku nekk da ngay am koo xam ni sa nattu la te moo ne nag wa kullan waada allahu lxusna laa yastawi minkum man anfaqa min qable alfatxi wa qaatal waaye nag te bu njëkk mu ne wa kullan waada alxusna dëgg la kii yàlla man de kii yàlla raw bu ngeen xëccoo moo jël ndam bi waaye yéen ñëpp a baax bi kon bii yi loolu la Aïcha mi ñu tuumaan ah yaay mistax yi koy wax lu ñaaw jëme ci mistax mistax dafa nangam ko ah moom ku ko bàyyi mu ñëw ci lii ay ni ko ragalal yàlla ndax mistax te war dafa tax te moo ne wax ci kawam la jëm si kon warul maa ngi même bu jëm si ci sama kaw maadaama dem badar dafay topp li nga ñaawle kon loo ma merloo merloo du tax ma fàtte lu ma la nga baax la allahu akbar gis nga yii mbokk yi nit ki su fekkoon ni xam na gis nga xaalis bi wala xoolal keroog ba mu faatoo lan la amee ibn xataab wax bi ñuy jooy jigéen ñi di jooy mu ne wallahi yéen a ngi jooy bu mat a jooy mu ne gis nga sama jigéen leen xatte tey bu xatte moo di góor mooy ko sëg xëy saytaane yi sa yére yi gis tam doo nga tax moom dafa mere woon parce que xaalis kat la jëf joo xam ne xëy na ictihaad la jublu juum na dëgg la dafa laa mere ngir yàlla waaye li ma lay mere mere mere dëkkee Omar ibn Xattaab ni wallahi jigéen ñi dootuñ tegal seen doom yi la ñu xaalis loolu mbokk yi koo reconnaître lu doo ko waxal kon contrôle jéggal ko nit ñi ci nafal boo ko waxal kon ñu ngi doon mbokk xam ñuy jéggalante di génnalante wal yaafu dañuy baalante wal yasbaxu dañuy jéggalante ala taxibuna an yaghfira allahu lakum gis nga jégg nit ki rek wan ko ko wallahi yàlla moo la gën a jëlee subhanahu wa taala gis nga bal tax nag nit ki daa war a ci jégg nit ki wan ko ko est ce que lu nekk taw yàlla jégg la yow wan la lu la jéggoo subhanahu wa taala kon jéggalante isbiru suñu borom ñu muñ leen wa saabiru ci ngeen muñalante wa raabitu jëf leen nii ngeen bañ a xajal ngelaw sax ci seen diggante wattaqullaha ngeen ragal yàlla laa tax ñu doon ngeen ko defee pexe ngeen doon ñaan ma may leen ba mu jeex yàlla yàlla xelal la may ñu ko sallallahu alayhi wa sallam